yéegaay the king la the goat the hall of fame the man who got the keys Mr West gars yi salaamaaleykum salaamaaleykum dalate leen jàmm sur ma chaîne Touba Show TV comme nañ ko yàgg di defee gars yi ñëwati nañ nag même bu fekkee en retard dinañ rattrapé wu si li nga xam ne moom moo di actualité ñu fi jot a xew treize yi fi jot a xew parce que jël nañ suñu temps observé pour mën a ñëw en force wax ak sénégalais continuer di conscientiser continuer di ubbi bëtu sénégalais ak xelu sénégalais si li nga xam ni moom moo nekk di daw mais balaa may commencer vidéo bi nga xam ni gis ngeen miniature bi ak titre bi j'aimerais bien vous en français comme ñi nga xam ne am na Sénégal am na français rek la ñuy làkk mooy wesh wesh yi bon ramadan ñi nga xam ne ñoom arabe lañu arabisant ay dem ma ne leen ayit mubarak mais ñi nga xam ne dëgg dëgg dëgg lañ naan kooru jàmm te di leen nag seulement ñetti truc yoo xam ne tey di ngeen ko dégg aussi au sud xam nga de la vidéo mooy maanaam wérgu yaram parce que c'est très essentiel gudd fan c'est très essentiel mais surtout sutura loolu noonu boo ko amee gaay mën nga dawal mbege nu la neexee waali neexul voilà Wally Seck dafa génnee benn clip on pas trop s'attarder si li nga xam ne moom moo clip bi on va s'attarder seulement si li nga xam ne moom moo di première partie bi ma ñëw di leen expliquer pourquoi le gars a utilisé partie boobu noonu pour se faire encore écouter wala pour refaire surface parce que quoi qu'on puisse dire en ce moment là Wally Seck depuis un bout moment wala du ma nekk nag di répéter Euh, li nga xam ni euh, jot na am si laay fama parce que vidéo yi def nañ ko du ma nekk aussi tamit di répéter sa carrière parce que sénégalais yu bëri fekkee nañ ko mais surtout li may gën a concentré wu mooy euh, lan moo waral tey Wally Seck se si affaire bu ridicule bii nii pour se faire encore écouter foofu laa bëgg ñu bàyyi ci xel si vous vous rappelez bien Wally Seck après problème yi bu mu amee après langaamu si polémique polémique yi bu mu amee chaque sortie de Wally Seck si vous faites très attention que ça soit muy clip que ça soit muy concert que ça soit muy album wala lépp loo xam ne Wally Seck mu koy préparé rek coow fa mu am il faut mu am benn genre polémique boo xam ni da koy accompagner te polémique boobu noonu moo yàgg dundal li nga xam ni moom moo di carrière Wally parce que Wally Seck bu defee son sans accompagner polémique nit ñi dañ koy fàtte et malheureusement am na yenn son yoo xam ni sax même bu ànd ak polémique nit ñi duñ ci concentré wu parce que contexte yi bokkul je vais vous expliquer mieux le gars nous a annoncé que ni am na ay artistes internationaux yoo xam ni defar nañ ñëw featuring donc lui-même moom moo dem fay xaalisam. moom moo dem recherche gars yi avec link yenn gars yoo xam ñu ngi États-Unis pour pouvoir xam nga def benn featuring ak ñooñu mais pour vous faire savoir que ni Wally Seck staffam bi a été toujours nul nul catégorique ñi nga xam ne ñëpp mooy grande tête yi nga xam ne ñëpp ñoo wër Wally mooy maanaam le choix qu'ils ont fait si ki nga xam ne moom moo ni Jason Derulo la benn artiste boo xam ne amul li nga xam ne moom moo di crédibilité. et je vous bien amul crédibilité biir États-Unis c'est un artiste boo xam ne en ce moment la il a tellement chuté qu'il est devenu xam nga mais aussi tamit artiste boo xam ni mooy loolu muy moom beneen artiste mooy benn artiste boo xam ne même bu fekkee am na street crédibilité biir États-Unis artiste R&B la il est mais dafa tollu benn moment boo xam ni dafa chuté moom tamit parce que il faisait toujours les mêmes choses mooy maanaam même sorte de musique loolu lay def aussi tam dafa nekk artiste boo xam ne tendance lay wër pour pouvoir survivre moo tax tey jii nii benn Chris Brown foo ko fekk mu ngi dem di wëri ay featuring ak nigériens yi parce que ñoom ñoo nekk en vogue léegi tey jii si le staff de Wally Seck était un peu intelligent il n'allait pas chercher ces artistes yi xam ne non seulement ñu ngi chuté mais dafa waroon chercher benn genre communauté boo xam ne ñu ngi si communauté régionale bi wala rurale bi en fait quand je dis maanaam sous région bi mooy maanaam benn guinéen buy dox mais buy dox carrément benn nigérian xam nga wala benn benn benn benn diamond platinum wala ces artistes yi nga xam ne vraiment au moins africain lañu dinañ nekk benn genre communauté boo xam ne nit ñi dinañ bàyyi xel si mais pas des américains yoo xam ne en ce moment si tu n'es même pas fort musicalement duñu perte seen temps sax bi occupé wu sur les artistes africains yi nga xam ne ñu ngi en vogue au moins que tey jii nii mu nekk quelqu'un boo xam ne am na benn aura comme tel un Davido wala tel un Wizkid wala wala li tax ma cité ñooñu parce que Wally Seck ñooñu la nekk di toppandoo quand il parle même dans ses interviews il ñu nomme toujours ces artistes là soit les Nigérians wala mu may na Diamond Platnumz bu mu defee loolu noonu mu am benn flop. flop bu extraordinaire flop bu catastrophique la Wally Seck indi fii nii en tant que quelqu'un koo xam ne moom la ñu projeté comme le meilleur artiste sénégalais en fait maanaam jamono jooju noonu mu ngi si digg prime mu ngi si digg ndënd erreur boobu noonu na daf ko coûté fatal parce que tey jii dafa wàññi li nga xam ne moom moo di crédibilité dafa wàññi tout espoir boo xam ne un sénégalais lambda amoon na ko pour jàpp ni Wally Seck mënoon na dépasser li nga xam ne moom moo di Youssou Ndour wala mënoon na téye Sénégal. all around the world mu ñëwaat nag indiwaat fi beneen fake buzz à part li nga moo di lampe LGBT yi nga xam na si diggante bi fonante ses danseurs patati patata wane sa vie privée les personnes yi xam dañu ñëw di défendre Wally Seck même mbindaan Wally Seck est devenu benn star parce que vie privée mu la ñu sanc plus que sa musique qu'est-ce s'est passé le gars est venu pour nous dire wala pour staffam bi wala ils ont fait de telle sorte que ni bruit bi génn comme il faut chaque fois que ni Wally Seck benn album international bi mu ko préparé ba koy waaj a génnee ñu amaat à notre grande surprise des personnes qui sont surtout si entourage Wally Seck comme tel Omaro ñëw naan Wally sekk jël na disque d'or juste parce que foog nañ ni mën nañ teg xel Sénégalais yi pour buñ nee Wally Seck jël na disque d'or les gens vont maanaam perdre leur temps à écouter une musique boo xam ne en toute sincérité c'est nul parce que Wally Seck bu génnee seetam tëm bi tëm yaa as mbay paka paka mooy laay bi nga xam ne moom lay def c'est très difficile que ni le gars te propose benn musicalité wala benn son boo xam ne tu peux l'écouter et tu sens carrément musique bu doog wala musique bu yéeg parce que attention Wally Seck y a des personnes plus performantes plus fortes que Wally Seck yi nga xam ñu ngi nekk biir mais coow bi nga xam ne moo entre Wally Seck coowu bu moo tax les gens s'occupent de Wally Seck mais si c'était seulement musical les gens ne vont pas écouter Wally Seck Wally Seck si cadre général c'est comme benn Dieyna Baldé quand on on va pas penser que on parle de Wally Seck ci coow yi njëkk xalaat que li nga xam ne moom moo di dernier son bi nga xam ni moom la Wally Seck dugal c'est ça que je suis en train de vous expliquer léegi nag vu que ne ñoom seen staff boobu noonu bi ñu defee li nga xam ne moom lan moom vient wax dëgg fi yàlla nekkaat beneen flop a beneen batos boo xam ne Wally Seck jël na ko à part yi nga xam ne moom moo di featuring international yi nga xam ne moom la def le gars s'est replié entre temps nag mu am ay naqar ay dogal yi nga xam ne ñoom ñoo ko jàpp mais dama leen di wax benn affaire gis nga yàlla bu lay tegaat si li nga xam ne moom di yoon bi bu lay wanaat yi nga xam ne moom moo di erreur yi nga xam moom la def bu lay mettre toujours à réfléchir mënuloo jox bànneex parce que tey jii nii bànneex boo koy gis t'as pas le temps de te revoir wala def autocritique si yow wala wóoyow mais le moment où naqaree commencé dugg sa monde di commencé lëndëm ngay gis seulement li nga xam ne moom moo di yoon en ce moment di nga toog uti lumière pour gis li nga xam moom moo di yoon bi et c'est ça qui est arrivé parce que ndongal la des fois dañu naan yàlla buy defar si day day mel ni kuy yàq c'est ça qui est arrivé à Wally Seck parce que ces trois personnes là ak nu mu mënti demee ñu leen di jaale ay personnes yu essentielles la si vie wu Wally Seck mais ay personnes yu essentielles la perte bi nga xam ne am na ko si futur Wally Seck mais nag le problème mooy comment il va l'utiliser yaa ngi certain boo xam ne tout récemment même bu fekkee politique bi jëloon na lu dessus mais am na benn moment boo xam ne les gens parlaient de Wally Seck mooy la mooy Wally Seck dafay def retrait musical quand je l'ai entendu j'ai dit que wax dëgg fa yàlla s'il fait ça il a fait le meilleur choix de sa carrière mooy maanaam réfléchir am benn genre perspective nekk si yeneen épargner wu dem seeti psychologue wala ay nit yoo xam ni comme ñun niñ ko tàmmee Sénégal dina waxtaan ak ñoom dinañ ko dëfal dinañ changer un li nga xam ni mooy xalaatam dund yeneen aventure dund yeneen expérience comme ça pour la première fois le gars il va arriver avec pour nous donner une bonne musique boo xam ne mais malheureusement coow bi nga xam ñu ngi naan Wally def na retrait sax li nga xam ne moom moo di un un mois tellement que ni le gars il veut pas perdre li nga xam ne moom moo di ay boobu noonu non je vais même dire il a peur de maanaam s'effacer si li nga xam moom moo di scène sénégalaise bi on l'a fait choisir son pire retour mooy maanaam dugal li nga xam ne moom moo vidéo bi nga xam ne def na ko utilisant des choses yoo xam ne naqar la ko pour juste avoir du ndeysaan retourné waat encore si formule bi nga xam ne moo gënoon ñun maanaam formule boo xam ne des sénégalais dépensé nañ ko mu ñëwaat foofu noonu juste pour se faire xam nga rappeler wala ñu xam ni yow ñu yërëm ko wala wóoree ba pour faire parler de lui et qu'est-ce qu'il a fait il a attaqué gens yi nga xam ni en ce moment bi ñu koy attaqué ils l'ont fait de façon légitime et justifiée parce que loolu moo nekk ils l'ont fait de façon légitime et justifiée c'est pas benn acharnement gratuit mais dafa nekk benn conscientisation boo xam ne en ce moment là sénégalais yi fallait que ñu ubbi seen bët wan seen bët ñooñu ñëw attaqué Wally Seck wan ko moom sa jàngal ko lu bëri bu fekkee nee na ignorant la woon gars yi wan ko li nga xam moom moo di réel bi même si ça ils ont continué à surfer si li nga xam ne moom moo di buzz boobu noonu nga xam ne c' était quelque chose de négatif muy bad buzz boobu noonu mais malheureusement ñëwaat ba benn instant woon na kenn xaaru ko kenn xoolu ko kenn faale ko ak Sonko Macky Sall Diomaye Amadou Ba patati patata le gars tellement qu'il est narcissique naqar yooyu nga xam ne moom moo ko waroon tax mu def retraite toog dem faju wala dem déglu parce que il en a besoin vraiment dafa besoin d'aide le gars retourne à faire ses bassesses wala ay def yenn yoo xam ni ça devient même ridicule c'est pour cela que j'ai dit que ne Wally Seck a chuté carrière am chuté na léegi nag il doit un conseil na dem bàyyi retraite boobu nga xam ni gars yi doon nañ ko junj pour def li nga xam ne moom moo di polémique vraiment loolu moo nekk choix bi toogal pendant beaucoup réfléchir defa musique bu nice boo xam ne les gens après dinañ la suivre seulement pour ta musique pas pour ta famille comme j'ai dit même sa mbindaan sax star la wala sa bàjjen wala wëree ba ñëpp ay wax or yow rek la war a doon or que musicien bi yow rek la war a doon or que les gens si biir di nga def une bonne musique pour représenter wala indi disque d'or nga xam ne yàgg nga ko bëgg te moom mooy li nga xam ni moom moo di sa juste pour être égal à Youssou en tout cas gars yi loolu moo nekkoon li nga xam moo di vidéo bi j' espère que ne nekk mu nit boo xam ne dur la mais triste réalité bi laa wax si li nga xam ne moom moo i carrière Wally Seck bi ak fi nga xam ne jamono jii foofu la toll du dajewaat si beneen vidéo stretch kii